رب تخليك السيارة الأول والثاني نختار محمودا نختار محمودا شيخي بولنا شيخ الحضرابي شيخ الحضرابي يا شيخ الحضرابي شيخ تيجاني يا شيخ الوالي شيخ محمد فاضل زيارة شيخ محمد فاضل الشام راهو مدلدي راهو دايدي راهو دايدي زيارتي انا رشدي شيخي تيجاني شيخي طارق شيخي عبد العزيز يا شيخ النعمة يا يا يا يا يا يا

Woo! chama

Thank you.

sunu xafla bi ñuy waaj boobu ba léegi macha allah. lan mooy mooy bis bi mooy del wan xale sunu cosaan ñun ñun naar les morts di Sénégal waaw loolu mooy mooy cosaanu bis at bu ne dañ koy def. gis nañ yenn fecc yi fi def a wax. ah fecc moderne yi léegi rek ñun sunu fecc xale yi seen fecc. mag nga yàgg nga looy wax xale yi. tey xanaa ñu góorgóorlu rek top seen ciosan ndax ciosan ku ko bayyi bayyi lepp ñun ciosan rek lañu xam teug tabala fecc bége at bu ne ñu def ko bu nu sañoon sa ñu dikay def 6 mois yu ne waaw. ñoo ngi sant nag di gërëm yéen ñi fi ñew ban télé. Mbour Weydis. Mbour Weydis ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen téway macha allah. ñëpp ñoo ci biir FENAMOR yooyu boobu muy CMS bi Ahmed Carrière mii jiite muy union générale de Maures de nationalité sénégalaise bi nga xamante ni man mii maa ko jiite. muy association pour la revalorisation de la culture maure bi nga xamante ni suñu papa Ahmed Makhtar Fall te mu génn àdduna fan yële moo ko jiite. ci mu and ci ak Ahmed Sizal mi fi tay tey way mu yor ko mom tamit mi ngi ci fena mo ak suñu jigen bu bax bobu ak association mu nan nasional national des morts du senegal ci Adja Dado job jiite ko mom tamit mi ngi ci fena mo ak pàcc bi nga xamanteni suñu papa suñu kilifa te mu genn aduna abdourahman Fall ci lala moko yoron tay yalla dogal ndëri Fall yor ko ñun ñepp ñongi and di waxtaan ci fena mo ndax dañu ni nit ñi yéenay falal seen njiit ci seeni gox dañoo bëgg taxawal nañu structure yëpp bu soobee yàlla ci jamono yi di ñëw danañ fi gën a dellusiwaat pour gën leen a expliquer fan lañu bëgg a jëmale naari ci biir Sénégal ndax structure boobu daanaka dañ ko jëmal nii rek waaye dañoo bëgg yéen ngeen tànn seeni njiit ci seeni gox ñu installer des structures locale installer des structures départementales installé ay structure régionale soko def congrès national loolu moy liggéey bi nga xamanteni mom lañu taxaw diko ko ñu yéen ci wo yeen ñep ndax yeen ay jambar ngeen ay naari Sénégal ngeen ndax bërki démb fàttali woon ne am na benn politicien bu genn di wax ni nari a amuñu droit pour poser sen candidature ndax naar boku tuddé rek Mauritanie la ba di ci attaquer Bougane Gueye dani yalla dogal ñun sax politique lu li ñuy def nii rek daray politique waaye askan wi moo ñu ñor ba mu jógee wax ni nag naar amul droit poser candidature am fii ñun dañoo jóg tontu ko tontu bu saf sàpp ba tey fi mu toll nii kooku mi ngi jégalu au-delà de lui vraiment dañ koy xamal ni naar yi ñoom ñoo sas Sénégal naar yi même tur bi sax ci naar la jóge Sénégal. ñi fi gën a baax ci biir Sénégal ay cosaan naar la. jéggale naa shérifu yi jéggale naa axlu kuntu yu sëriñ ci borom naar la ndax muhammadul xayri moo jur maam maaram maam maaram jur maam balla maam balla maam mor ant maam mor ant sali sëñ Tuubaa di ñu ñooñu seen imam bokkoon na ci naar yi daan dugal l'islam fii ci biir Sénégal ba tey l'islam am quatre vingt kooku ñi xamul histoire rek ñooy wax waaye naar yi ku ngeen ku ku leen fi ku ngeen fi ëppalewul ëppalewu leen fi fii ci biir Sénégal ay jàmbaar ngeen ay gor ngeen yàgg ngeen a gis seeni maam bari na ay doxandeem yu daan ñëw ci quartier bi bu ñu daan bëgg xéewal dañ daan ana kër naar yi parce que xam nañ bu demee foofu dañ fay fekk ay xéewal dañ leen yi teral naar xamul lu dul teral loolu nag moom la ñu defe naa moor bëgg ko ànd ak yéen bu soobee yàlla këyit yëpp liggéey nañ ko dañ leen koy jébbal ngeen jàngat ko bu ko defee danañ fi dellusiwaat ah bayaati baabu mii wax dëgg yàlla jàmbaar la maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax ndax nun danoo jàpp ni geenu golo gudd na lu ca laal mu yëg tey boo fi taxawee ci bi dëkk bu mel ni Mbuur ngay liggéey ba yalla jox la fi ndomb tank bu mel ni jang bok ci ñun ci askanu nar ñuy deggante à chaque fois ñong lay jaajeufal di la di la soññ bu baaxa baax sa njabota ngi ni bu len faté ñomit bëgg na ñu soñu len ñu gën la jappalé ndax nga gën jëm ci kanam kon lolu mo doon kaddu ki nga xamanteni wax deug yalla yalla dafa dogal moy Lamine bare gay di coordinateur FENAMOR dafa am empêchement tey ñun ñu teewal ko fi di ànd di liggéey ci wàllu woowu bala may daaneel wax dëgg yàlla sama mag sama xarit di amee kudd koo xamee ci amee carrière di jàmbaaru faq dëgg ci biir naar bi ku ne xam na li mu fi liggéey fii ci biir réew mi wax dëgg yàlla mu bàyyi yiteem yëpp ni da nañ ñëw ànd ak man fii ci biir Mbuur pour ñu won naar naari mbuur yi wax dëgg yàlla fonk nañ leen gërëm nañ leen sant nañ leen ba ngeen jëlee seen organisation bi boole ñu ci. asalaamualeykum wa rahmatullah samay mbokk samay deret maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo bi nag ki nga xamante ni mooy sunu kilifa muy Saloum Dieng. ñu ngi koy nuyu jël nuyoo bi teg ko ci loxo jàllale ko ci garde gi yëpp bàyyi wuñu góor bàyyi wuñu jigéen bàyyi wuñu mag bàyyi wuñu xale di sant nag askanu naar bi fi daje tey lii mbégte la kontante la ñu ñëwaat fekk fi adjoint maire muy sunu deret di bokk ci askanu naar mu tudd ba yaati baabu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral lii muy mbëbët ci biir askan bi di ci dox ba yàlla jox ko ndombal tànk bii yàlla na ko yàlla def ba muy dooni maire te yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def may euh, docteur Mawlud dafa tëj lépp xëy na man dama ci jàllale rek lu ndaw tey tudd na wala tudd culture kii taxaw nii muy Zal Dieng li tox pikin ba géej way yëpp moo mooy yore culture bi moom mooy Zal Dieng damay nuyu ñi mënuma toog te duma leen nuyu euh, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ñii amuñu seen fay askanu naar fu mu mën a toll Abdou jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax booba yal na yàlla guddal seen fan lii buñ ko amul duñu dem fenn parce que lii mooy culture bi parce que lu ñu xamoon mooy tabara mais léegi lii dafa am konte ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm bu baax suñu papa bi parce que Saloum yëg dafa am doole di nuyu suñu benn jigéen bu fi nekk muy Yacine si ñu ngi koy nuyu bu baax a baax parce que nit yëg rek moo am solo te da ngeen ñoo yëg gis na bu ñu nekkoon ba kirikoro dinañ leen ñëwal parce que yëg moo am solo yëkkati sa enveloppe dem jox ko nit ni ko damaa bëgg nga ñëw sama bés kooku bàyyiwu la dara te konte ñun askanu naar bi la ñuy dox askanu naar bi la ñu bëgg booloo ñun ñëpp ñu doon benn lii tey ñu déplacé ñëw fi dina defar lu bari leen di gërëm di sant waa Mbour gépp di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla na la yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf wasalaam mën wax sax fi la jojo parce que fi la jangé nyom la maggé sama kër Pape yaax ñom Grand salum ñi ñoma yaat waaw ñom ñoma yaat amna fay xarit ñuma ma doon andal fi ci Mbour amna ño xamni genn nañu aduna yalla na leen yalla ah ma ñom doon and ñom papa ñom bani ah kulim lim da ngay faté ah Assane Diouf dekk fi HLM. ah bari woon naa fi xarit lool lool mag ñi ñoom xam nan ma peut-être xale yi ñoom a dul xam mais mag ñi fii den ma xam waaw xëy na dañuy fàtte sama tur mais suñu gisee sama kanam den ma xam parce que fii laa yaroo fii ci gàdd gi fii kon nag may wax ne li sama rakk ji wax léegi ci naar yi naar yi nañu gën a jàppalante seen biir nu gën a fonk seen bopp gën a dëgëral seen bopp ba yaati mii nekk adjoint au maire mën na nekk maire fii ci mbuur su fekkee ni jàppale ngeen ko yéen gëm ngeen seen bopp ngeen jàppale ko mën na nekk maire ci Mbour fii parce que kenn ëpp leen fi naar yi kenn ëpp leen fii tey kenn gën leen dëgër fii ci dëkk bi kon la gëm leen seen bopp bul topp bañ bàyyi al toppe bi nanu bàyyi di topp ci ñoo xam ni euh, du wax ne ay du nu naar mais ñoo xam ni sori nañu am na ñu ñu gën a jage na leen jàppale waaw fii ay intellectuel ñi ngi fii ñu jàng ñi ngi fii kon nag dañ leen jàppale man loolu laa amul lu ma ci wax di nuyu sama yaay yi nekk fii di nuyu sama rakk yi sama jarbaat yi ma xamul di nuyu sama mag ñi di nuyu ñëpp leen ñaanal yàlla li yan ko def at yu bari ñu koy fekkee jërëjëf. moo ñu rendre hommage Chérif Abdourahmane Tirala Fall loolu bañ koy xalaat moom la ñu ndax ku fi nekkoon ak yéen di jóg ak yéen di daanoo ak yéen muy metti muy jóg muy tàng muy jog muy naaj muy jóg ba yàlla moom ko war nga foo toll di ko delloo njukkal di ko fàttaliku loolu bokk na ci li nga xam ne tey jii li ñu initié fii tey di ko def tey jii loolu ci la bokk looloo waral tey ndax affaire àddina continuité la moo fi nekkoon neewatu fi keneen war na ko mën a wuutu te loolu man duñ duñ ci ànd ku fi nekkoon nekkatu fi képp koo xam ne nag bu nga ko wuutu ne nekk doomu askanu naar ak keneen koo mën a doon ku bu ñu toogee waxtaan dañoo war a juboo dañoo war a lëkkaloo dañoo war a ànd loolu moo rafet bu ko defee bu ëllëgee fu ñu tàllalee loxo ci ci ci autorité yi ñu xam ne ñoon ñii benn bopp lañu bu boobaa lépp loo xam ne soxla nañ ko ñu defal ko ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal rawatina yow wulli nii ak dara Mawlud waa Mbour kontaan nañ ci yéen lool lool lool loola taxal lii ma table bii ma def nii table bi kii yo kii fekk naa ko fu nekk fekk naa ko fu nekk Dakar gaaral na mi fi ay car mu yóbbu ay soixante-dix personnes ay cinquante personnes mu dalal ñu ñooy añ di reer di ndekki mu feel ma aller retour te su musuma la dërëm kooku ba ma goree war naa bu bis bi jotee war naa koo fàttali waaw bu bis bi jotee war naa koo fàttali ko waral ma ko waral ma ko jigéen ñëpp ñi ñëpp fekk nañ ko bisam ñëpp ñëw nañ ci bisam ñëpp tout le monde ñu ko mu as askanu naar la. yow ñoom gor nga. askanu naar la lii gor a koy def. du ma ko mës a fàtte. loolu la gor mooy def lii du ma ko mës a fàtte. lu ma xam la si yow. billahi du ma ko fàtte. lu ma xam la billahi du ma ko fàtte. ak keneen ku mën a jiitu ku ne mun nañu lëkkaloo ànd liggéey mais kii du ma ko mës a fàtte. dëgg la du ma ko mës a fàtte. kii sama mag la man. jeex na macha allah mi ngi nii. sama mag la man mi ngi nii. bu soobee yàlla doomam di xalifaam dana ci jot. incha allah bu waxee nii. danañ koy yóbbu ba foofu. mu noonu bu soobee yàlla. ñu ngi nii góor góor pire ngi nii. góor pire ngi nii. du liggéey dara si biir Dakar te ko wekkewu ma. دولة دايما دولة دايما شوفوا سنين وشوفوا سنين يا ولاد دايما Seymen, Seymen, Yahuda, Seymen, Seymen, Yahuda, Seymen, Yahuda, Seymen, Ayşun Seyit, Yahuda, Seymen, Yahuda, Yahuda, Yahuda, Seymen, Yahuda, Seymen, Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, joxal joxal première dame joxal première dame alal limaane joxal première dame joxal première dame waaw première dame mi ngi nii jiga diw la de jiga diw la keneen tam jiga diw la yaa toll noonu nag jiga diw la te keneen jiga diw la moi je ne triche pas ndax man li ma maa ko liggéeyal sama paale ma kenn moom mi bu bu bu ñu àndee mu dafa ma jur loolu du ma ko faale dañu ànd ci dëgg de dëgg naa lu nekk nag لي واخنا يلينا كنك واي ماغمون بيكر بير رك بيكر بير كاس ماغ بياتي مي ماغمون بيكر بير رك نلاتي ما ديغي ماغمون كين دوغا خم مبالا ما كوخ اس غور نك مشاعي ساسال خمان ما يكل ما داك لا با واخا توب توب خما توب توب لا غير خم لو مودون ما كونتا لون سي مام نك تا ماما بوليك مام بوغا نيهون ني وا بابي ماما غور لو ما سولو ديديت lu muy def lu ne du jaar ci Ablaye de damay téléphoné direct góor gi Saloum man ko waa mu ne ma bi sangam naa nangam ak nangam ñëwal mu jaarale ko ci madame ba madame kii kàddu gi moo koy taxaw lu ba barki de moo Ndiaye li ñu organisé nii tay jii moo ci taxaw moo ko Ablaye bi ba loolu mën a nekk man du ma triché de ndax kenn doxuma dara kenn saxalu ma tus yaa ngi dégg bëgg dañoo ànd àndu nawle rek maa dem ba ñëwal rek solal solal ko ko ndax mooy Cheikh Issa moom mooy Cheikh Issa solal ko ko solal ko ko mooy Cheikh Issa solal ko ko waaw solal ko ko moom mooy Cheikh Issa waaw ana ana ana ana ana ana jox ko li ci des aywa mu ngoog yow yaa Cheikh Issa te wane nga ko ñoom xam nañ ko barke dem bañ defee délégation fekk événement yi am li mu la war a jox pour nga jox ñu ko yow yaa ko indi doo ñoom ñu xam nañ la te wax na ma léegi ni tey ñoom autorité yi dañoo ragal dugg ci seen oto ndax saay saay saay saay leen nee na ma ci biir semaine bi naa formé délégation nuñ fa formé mu ñëw loo mu joxoon di la ko joxe joxe du ko dublu loolu la mu wax loolu la loolu la la wax Ablaye wax ma ko loolu dama bu ngeen dégg loolu bu baax a baax ñaaka ñëwoon bi nag neexu ko ndax ku ne xam ne dëkk bi dafa tar dafa metti kii sax day dafa dañoo nekk ci zone boo xam ne xëñ na euh, mu rocceeku ndaa nga ñëw rek moo tax mu sax ndax dañ leen dañuy moytu kon nag Ablaye xafla baa ngi ni naar jaa ngi nii sa askano ngi ni sa njaboot baa ngi ni di gërëm nag sa staff bii nga nag macha allah ana Pape Samba baa ngi nii ñu ngi nii de ñu aji Ndéela ngi ni la grande dame mi ngi ni la Viviane xool mooy mooy mooy mooy jël euh, Ablaye Babou dugal ko ci biir poqataanam ngelaw du dugg dara du ko dom doomam nga nii kii mooy taawam taawu Ablaye Babou nga nii kii mooy taawu Ablaye Babou kii man man man maam la may woowee man maamam laa jërëjëf waay yàlla jàmm yàlla fi jàmm sax yàlla na fi jàmm sax luy Etienne koy sama doom la kii doomu Mbour Séeréer la doomu ma ne di nuyu di leen gërëm di leen sant vraiment di sant askanu naar yëpp di sant waa gàdd gi di leen ñaanal yàlla yàlla euh, defar diggante yi lii ñu yàgg ko organiser sigil ngeen nu sigil ngeen nu ci biir mbuur ñooñu leen ci ñaanal yàlla nag di ci jiital le doyen Saloum yàlla na la yàlla fay infatigable guddi ak bëccëg mi ngi dox lan mooy defal askanu naar doyen yàlla yàlla yokk sa fan yàlla nga yàlla nekk ci kanamu njaboot gi vraiment kontaan nañu monsieur le maire mi ngi lay nuyu di la féliciter yow xam nga li nekk ci moom moom xam na li nga wax léegi rek loolu la tey jii moo waroon présider cérémonie bi bi ngeen koy waaj ba léegi yéen ay ànd loxoom musu fee jóg te incha allah fan yi comme ni mu ko waxee di ngeen def délégation ngeen dem jàkkaarloog moom lu mu warloog moom lu mu warloog yéen dina ko def donc vraiment di gërëm ñépp tey jii boo gisee le conseil municipal est va commencer par Monsieur le maire. suñu frère pour serrer ak Gàdd ga kenn mënu leen séparé di les conseillers municipaux ñi ngi fii taxaw yaa ngi dee la jenn ngi nii Salma À mii fii ak ñu délégation bi pour représenter l'ensemble du conseil municipal Waah, ah, Virginie Khady ma fille, doom bi moo gën a jege conseiller municipal bi waaw naaru séeréer donc vraiment maire bi yëpp a ngi fii di leen sargal si di leen wax ne ñëw bokk euh, bés bi tey jii nag vraiment dafa nekk un jour particulier moo tax le maire et l' ensemble du conseil bi deful délégation bi tey ñëw mais moo ko yéen yéen bokk ndey yéen bokk baay doomu ndeyam bii di madame seen ngeen xam ko bu baax lu mu xat xat xat xat nee na nu mu mën a def dina ñëw fekk si euh, cérémonie bi pour wan leen ne sa disponibilité ak bëgg-bëggam pour lépp loo xam ne gàdd gi mi ngi koy def mu dugal ci loxoom ñii ñëpp ngeen di gis fii ñoo gàdd gi ñoo bokk ndey ak baay ànd ak yéen ci lépp loo xam ne rek soxla ngeen ko mbuur benn bopp la mbuur séeréer lañu wax mbuur tukuleur mbuur séeréer mbuur coose mbuur nar c'est la famille donc nañu bok ndey ko baye pour développer suñu dëkk lolu moy kaddu monsieur le maire bu kenn yéene kenn lu bon tay ji mo ndey mo mo jaboté ñëpp amul ku bok bor fi am ku bok fele mbuur la yelif dañu wara and pour nak lañu mëna def pour développer la ville de Mbour té lolu dina ci and ak yeen li ngeen di def ci la partie culturelle dafa am solo ci mom muy fi muy tefes muy sosé yi muy séréer yi muy saraxolé yi muy bambaré yi lepp dañ ko wara dundalat pour mu nek la renaissance culturelle de la ville de Mbour donc ma ngi leen di gërëm bu baax au nom de l'ensemble du conseil municipal Wow. xale da ko jëndoon ndeke ñu fàtte woon koy jëli waaw waaw macha allah tuuti mu ngi ñëw waaw mu ngi ñëw kooku d'accord donc di gërëm Saloum ma ne di gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax encore mbokk yi man de lépp loo xam ne defal naa ko sama askan rek xeeb naa parce que ñooy suñu raison d'être lépp lu ñuy yëngu suñ ci gisul suñuy mbom mbokk ñu sawar te monsieur le maire mi ngi ñu koy delloo bu baax a baax a baax a baax dama koy gërëm fii ma demba di la wax ne ñi ngi gërëm monsieur le maire bu baax parce que sàgganewul ñun lépp loo xam ne yëkkati nañ ko mu njor ñu mi ngi ci nekk guddi ak bëccëg donc vraiment tous nos remerciements lii nag sama participation personnelle maa ko une enveloppe de 200 000. mille boo xam ne maay def participation pour leen wax leen ne lépp lu ngeen nekk guddi ak bëccëg maa ngi ci xanaa lu ma yëgul mais lépp lu gàdd gi yëkkati lépp lu naari yëkkati maa ngi ci guddi ak bëccëg que jaral ngeen mom fi la laa fi la magge sama lepp sama la ko def sama sama jarbat sama tante sama yaay sama rak do fi nek lepp lo xam mën na ko def rek pour ngeen dem ci kanam wala mën na ci japp pour que du ngeen am benn problème insha allah rabbi ma ngi ci goudi ma ngi ci donc di leen sant bu baax a baax a baax a bi rëy ci li ngeen teral monsieur le maire rëy na ci man parce que sagal nga ñu cër bi mu ñu jox delloo ngeen ko te jeexagul gis naa ne ngeen indi moyens yi ataay bi kii nag moom lawal bi ñoo koy bokk ah en tout cas Machallah, machallah, vraiment, toutes nos félicitations. Félicitations, doyen Salou. di ak sas bi nga andal ñep sa jigen ñi la dar bàyyiwuñ la fenn lo jop ñu ngi ci yalla leen yalla fay Mademba teranga monsieur maire ak non li mom nan ataay ba la <laughs> macha allah macha allah vraiment toutes nos félicitations. nee na jàppal fii. kontaan nañ ci kontaan nañ bu baax monsieur le maire. très bien. ataay baa ngoog aywa. merci beaucoup jërëjëf. merci jërëjëf Saloum. kontaan nañ bu baax a baax a baax a macha allah. vraiment yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko ay déwéni déwén. Euh, fekk ko ñoom bu kenn manqué. yàlla defal ñu jàmm ju bare bare bare xéewal bu bari ba kart bi yëpp gis ci boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di gërëm délégation bi yëpp ñu ànd euh, vraiment pour ñëw jëmmal ñu jëmmal waa gàdd gi vraiment kontaan naa ci baax man sama xol dafa fees macha allah jërëjëf macha allah.